baab euh, génn ci génn ci lëndëm dugg ci leer mooy duggu ci lislaam loolu mooy exemple la ñu am taay mooy lislaam day yokk waaw euh, jërëjëf sëñ Saliou adesso voglio anche chiedere far passare era euh, l'insegnamento di Cheikh Ahmadou Bamba nella pace perché lui durante 33 anni della sua vita era nel mani de nemici francesi però ha sempre preso la pace come la sua arma e oggi l'Islam e è, è, è, figurato come una religione di, di guerra, di terrorismo. Eh, invece il nome solo è Islam, Islam è pace. Eh, la salutazione e salam, la pace. Che cosa hai sentito e che cosa puoi giungere nel messaggio che ha letto Babacar Mbacche che anche italiano come voi? Eh, scusa euh, per la télévision la demande in wolof euh, dama laaj euh, sunu mbokk jullit bi nga xam ni yàlla dogal na ñoom nenn seen sëriñ ña nga Afrique du Sud ay xaadir lañu ñu wax ni ma laaj leen ni leen Serigne Touba mi nga xam ne moo waral bésu tey bi fanweeri at ak ñett yoo xam ne mi ngi ko ci loxo nasaraan yi nga xam ne ay noonam lañu fanweeri at ak ñett yëpp li nga xam ne moom la defoon gànnaayam mooy jàmm mooy jàmm jàmm jooju nag bëgg ko wesaare ci àddina bi ñëpp jànge ci moom moo tax ñu def ko teemu conférence su tey bi conférence boobu nag euh, ñu jàngale ci ni Serigne Touba liggéeyee am lépp li mu am ci jàmm loolu lañ leen di laaj suñu mbokk jullit yi ñoom nan la ñu gisee come avete visto que Beh, euh, innanzitutto eh, la vita di uno sheikh è una vita di sottomissione ad Allah e quindi in ogni caso è una vita di pace. Qualunque, condizione Allah a, a presente nella sua vita qualunque situazione, che sia una situazione di, effettiva pace, e quiete, che sia una, situazione di sforzo e quindi uno sforzo e quindi di, mm, un certo senso di rottura di questa, quiete, nella sottomissione dell'AE è sempre e comunque pace nella sottomissione ad Allah e è sempre comunque pace, quindi un musulmano Eh, la, fisabilillah, la vita di un musulmano fisabilillah, qualunque, qualunque condizione lui viva è pace, e compreso le situazioni peggiori che possiamo vedere nel mondo, eh, dal mio punto di vista fisabilità e pace. Soprattutto la pace sì, esatto. Eh, senza puoi fare la traduzione, mettiti qua davanti alla televisione. moom nee na suñu suñu mbokk moom nee na Euh, dafa dafay confirmer mooy diine li fi nekk moom mooy jàmmu asalaam la fi nekk mooy jàmmu la jàmm la ñuy la wuti ñun islam mooy jàmm mooy mooy xam euh, nga Ah, waaw euh, wax na itam ni li nga xam ni moom mooy sunu moo war a nekk sunu gànnaay saa su nekk mooy liggéey fii sabilillah mooy liggéey ngir yàlla waaw waaw li mooy loolu mooy confirmer moom mm, lu ñuy war a def ñoo lu ñuy war a ñoor ci ñun mooy lu ñuy war a liggéey ngir yàlla ak jëmu Serigne Touba loolu mooy feeñ ci ñun waaw eh, jërëjëf eh, sëñ Saliou eh, jërëjëf suñu mbokk julli di grazie tutti voi abbiamo ancora Serigne Khadim Serigne Khadim è uno dei fenomeni waaw waaw may leen tudd waaw uno dei fenomeni veramente uno che veramente è un esempio anche per noi che siamo nati murit ñun ñi nga xam ne dañoo juddu ci yoon wi mbaa ñun ñi nga xam ni yàgg nañ ci yoon wi wala yoon wi sunu réew ma fala cosaanoo ñun fi ñu toll nii sëñ Xaadim mii dañ ko def royukaay ci passeefam bu xew-xew amee bañ naka ba day dem ca liggéey ya nga xam ne ñoo gën a metti sëñ Moustapha muy ca waañ wa joxem café gi ak yu mel na nu royukaay la ci ñun euh, sëñ Khadim euh, tu sei un esempio per noi tu sei anche una fierta per tutti i musulmani, soprattutto per i muridi, perché sappiamo come Saliu, come Abubakar, anche come i vostri fratelli Dauda e l'altro, veramente... Euh, dañu ñu soññ bu baax ci euh, ci liggéey euh, lu mu def moom mooy humilité comme la ñuy wax ci kaddu ci wolof humilité mooy bëggul bëggul dara ci àdduna quoi. waaw moom moom moom waa gëmu sëriñ bi quoi. moo liggéey lu xasee lu ñuy xasee def. Hmm. wala nga jox kafe hmm. wala nga balle. Hmm. wala nga dimbule doomu aadama yëpp benn la loolu mu def moom rek liggéey sëriñ bi la ko ñëwar. est-ce que kon sëñ Xaadim nga sànni ci ay kaddu. Ah, salaamaaleykum wa rahmatullahi baal ma ko même man dinga tuuti wolof hmm. euh, dinga euh, italien ou bien français waaw waaw je peux parler même français Et euh, moi j'ai écouté ce qu'il a dit mon intervistateur mais moi je me sens pas tellement gros comme ça je suis plus petit de ce que vous me disiez et je veux remercier pour tous surtout pour euh, avoir eu la possibilité de connaître e le mouridisme et le travail pour Cheikh Amadou Bamba. Euh, pour moi, ce n'est pas encore fini ce travail parce que moi, je me vois encore dans la, dans la rue Petit. Euh, J'espère que cette route euh, l'amène nous tous à, faire euh, choses de bien pour la paix et pour le ben être euh, de l'humain et de l'humanité. Mm-hmm. Ah. Donc mon, mon, euh, mon travail, c'est pour moi-même, c'est petit par rapport à... Voilà. Mais je vais euh, profiter de euh, saluer mon cher, euh, que je suis très fier de, de l'avoir euh, connu, parce qu'il m'a donné quelque chose dedans que même moi, je ne connais pas encore. Euh, Serigne Cheikh Saliou Mbacke yàlla na fi te wër. Eh, yaakaar naa ni loolu du jar traduire sëñ Youssou Sagna mi yor télévision Sénégal ndax français la ñëpp daan ko dégg waaye liñ ci mën a tënk rek mooy eh, sëñ Xaadim wax na ni dëgg la li kàddu yi ma jiital jëmale ko ci moom. Eh, wax na ni man maa yëkkatee kàddu yi noonu waaye moom fi mu yéene yegg ci liggéeyal sëriñ bi ak defal lislaam xam na ni moom tàmbaleegul sax. mais nag mi ngi sant ki yàlla jaarale ci moom ba mu dugg si itam ci liggéey bi te lépp loo xam ne mi ngi ko ciy def it mi ngi koy xeeb ngir fas yéene gëmale jëmale liggéeyam ci kaw. sëriñ bi nee naa euh, sëriñam mooy sëriñ Cheikh euh, Mbacke Saliou. Mm. dafay da ko digal moom. Mm. fu jaamu yàlla am. Mm. fuy comme noonu am ci liggéey. moom mu war a fekk si foofu. waaw fekk loolu te moom tamit mi ngi ci ndigal loolu. est waaw kon dégg ngeen kàddu yi nga xam moom la sëñ Saliou yokkee eh, sëñ Abdou Khadir eh, moom yàlla dogal na bés bi nga xamee ni eh, ci lay dugg ci lislaam dafa dajeeg màggalu sëñ Abdou Khadir sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir ñëw fi bi ñu ko ko waxee itam mu ni fas na yéene dugg ci lislaam Eh, yàlla dogal it biñ ko nee da ngay tànn turu jullit itam dafa daal di ni borom bi daal gannaaw moom la yàlla dogal mu dajeeg moom day tudd sëñ Abdou Khadir moom it taalibi sañ Saliou eh, sëñ Cheikh moom sëñ Saliou Mbacke la sëñ Abdou Khadir come hai visto oggi l'otto giugno molto contento, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, assalamu alaikum baku i eh, talibi, <laughs> tutti balmak perché guatana, tutti nengawolof. quindi Leghi Watan Italien. Eh, io sono contento di essere qua oggi per siare Serie, serie Serie Murtalà. Eh, sono molto contento che tanti anni fa, grazie anche a Serie Salio, così eh, sono venuto qua per eh, il Magar di Serena Brucadere, sono entrato nel muridismo e questo mi ha mi ha giovato molto, che mi ha dato tranquillità e serenità. E spero col vostro aiuto così di continuare ad apprendere la via di Serituba e io sono qua anche oggi per lavorare per Serituba perché sono un piccolo talibi di Serituba e quello che è importante per me lavorare per Serituba. Spero di al più presto di ritornare in Senegal e fiare da, da Mioserin Strinceran Salim Bakr, i suoi figli, Califa Salisalio, e che sono persone molto importanti che mi fanno bene al mio cuore vederli e, poter ascoltare i loro insegnamenti. Ti Rajab. Sëñ Saliou fay la tradition. moom eh, ci ci nekk. Euh, dafay wax kàddu italien loolu moom nee na euh, euh, xol bi sedd na guy mm, ci lu fi nekk ci liggéey sëriñ bi mu fi bàyyi lu fi bàyyi yépp dugg ci diine yi jéblu ci sëriñ Cheikh di ñaan yàlla mu dem foofu ay yoon yoon te sëriñ Cheikh moo ko tawax kër ga mm, moom moom moom yaakaar la fi am rek bëgg nekk Sénégal togg senegal nekk ci lu baax euh, ma euh, loolu xool dafa moom moom lay <laughs> dafa xaw a xam xam ga am na mm, kenn ku nekk dina am lu lu yàlla maay kero ba ñu ba ñu dem euh, siyaare sëriñ bi mun dafa jar ci sëriñ non non Fallou doomu sëñ Fallou saxaar la waaw moom moom moom dafay jaar ci se kër sëriñ Alaaji Baara mu jaar sëriñ sëriñ Alaaji Baara léegi sëriñ Alaaji Baara mu yëkkati benn mbubb mu may ko ak diya léegi bu mu dem foofu ak kontaan ak loolu mu won ko ci Serigne Cheikh mu wax ko kii moom Serigne Alaaji bal mu may ma loolu ma barkeelu mu jox ma ci addiya léegi eh, Serigne bi mu loolu mu lu mu ci kontaan loolu mu wam am nga dolli ci bi mu dindi axigalu ma am ci loxo. sëñ Cheikh moo dindi lii takk moo dindi lii mu tàkk ko mu wam am nga teel bi nga dolli ci. waaw xam nga loolu moom xam na bu baax mooy xéewli ci kaw xéewli. Hmm. te moom toujours boo ko dégg eh, badde eh, Serigne Cheikh. Hmm. au di siyaare Serigne Saliou. Hmm. toujours am na lu ko euh, xol bi lu ko yëg moom. day sarse toujours day sarse moom day kontaan di ko dindi ay problème yu bari yaam fii ci biir réew mi mm. boo dégg loolu moom ak leer loolu nu mu ñëw ci ñoom mm. moom nee na wax dëgg yàlla changé na lu bare bare bare bare bare waa ci dundam mm. moom wa dëgg yàlla euh, dañu sant bu baax gërëm euh, loolu mooy euh, dama fàttali ko benn xasaayda sunu borom mu bindi ci muwaay muwaay bu naafiw mm. ya xalal baari ya xalal baari julli baari baari saxaari loolu mooy <laughs> lay wankaay waaw woote bi yëppee ñuure eh, sëñ Saliou dese nañu soxna jaara balaa ngay dem soxna jaara toogal tuuti balaa ngay dem eh, moom it waaw soxna jaara moom di sunu soxna moom it yàgg lool eh, ci lislaam ndax kenn ci sunu mbokku taali bi nga xam ni borom Pastef lañu lool ci liggéey bi muy sëñ Ablaye Mbaw moo ngay seen mooy boroom këram moom it di borom Pastef lool lool lool sëñ Mbaw waaw ma nga kon euh, soxna jaara li may wax dégg nga tuuti to hai capisci un po' di wolof però parliamo anche <laughs> italiano stavi dicendo che da molto tempo che sei dentro di noi eh, perché uno dei, eh, uno piastri di questa associazione Charmant Bamba è il suo marito eh, tu anche sei una delle nostre sorelle musulmane come Sokhna Diarra come Sokhna Mariama eh, come hai visto oggi come hai vissuto oggi l'8 giugno Ma, mh, mm, cioè, questi incontri mi piacciono sempre molto perché mi danno così la misura dell'unione che c'è all'interno dei Murid. E la cosa che appunto mi colpisce sempre è che nonostante Amadou Bamba ci abbia lasciato da tanto, cioè questo suo insegnamento riesce comunque a tenere unito anche a distanze notevoli le persone che credono e che praticano il suo messaggio. e moom nee na soxna si moom nee na eh, sàkk sàkk xewul xewul comme bis bi tàyyi eh, lu ko lu ko yar moom ci xool bi moom eh, liggéey Serigne Touba lu mu yàgg yàgg lu mu sori sori ñoom moom la bis bis comme tàyyi dañu ko day mën a bees toujours waaw loolu la li fi waax moom. waaw waaw ci tënk daal loolu la wax ndax euh, nee na yàkkamti na di ci ñëw lool ndax euh, jamono ju nekk dañuy yëg ni message yu Cheikhul Khadim donte bi mu fi jógee yàgg na waaye dafa mel na tey la gën a bees. Euh, si <laughs> non ay altri da giungere va bene la ringraziamo. Non voce, non lo posso spiegare. Sentire Dio non si può spiegare, impossibile, non voce, Se Dio ti fa un disegno, tu lo segui e quello che senti non si può spiegare. Alla fine si vedrà che disegno ha fatto Dio per me e io seguo la sua strada. Dio mi ha portato qui e quello che provo è troppo grande per spiegarlo. L'avevo già visto l'anno scorso e mi aveva guardato tre volte negli occhi. Questo mi ha fatto pensare e pregare tutto l'anno a lui. e non vedevo l'ora di rivederlo e volevo andare in Senegal a vederlo prima, poi per problemi di lavoro non ho potuto andare e ero molto emozionata. Okay, grazie, mm, eh, na moom nee lu mu yëkk ci xol bi lu yàlla moo ko boole munoo munoo ko wax parce que amul wax loolu parce que kenn ku nekk xam lu ñaam ci xol bi eh, après moom nee dafa am ay jafe-jafe bëgg gis euh, Serigne Mourtada pour siyaar ko parce que daaw moom moom mu ne Serigne Mourtada da ko xool ñetti yoon xool loolu lu mu